jàkka jam doon jullee nag ñu soppi xibla bi ndax ci biir julli la révélation bi ñëw ne ko jóblul makka ñu tuddee ko masjidul nii waaye dégg naa saoudien yi sax yàq nañ euh, euh, euh, surface ba neex ne nañ nit ñi dañ fay bokkale yàlla yàlla yàllay taxu lan yahdimu yàlla lan toon duñ ko toj parce que histoire la kenn du jaamu xërëm nit ñi dépassé nañ di jaamu ay xërëm loolu ay expression yu doy waar la kenn jaamutu këram ci kaw kaw suuf amul kenn ku gëm yàlla tey di jaamu këram amul amul kooku il faut ñu dépasser espace boobu dem ci beneen espace bu gën a évoluer gën a yokk incha allah terew na ni ñaa ngi de bokkale yàlla waaye euh, aywa léegi nag bi nga xamee ne Yashuu génn na àdduna yahood yi implanté wu ci baytil maqdis ak Palestine ak li ko wër waaye taxul ñu moom ko léegi nag gannaaw yashuu bani israila dañu xaaj ñetti xaaj xaaj bii tuddee seen bopp alqudaatu alqudaatu mooy ñi nga xam ne ñoo war a atte qudaatu yooyu am nañ fa ci reñ lu tolloo quatre cent années ci seen reñ ñoom qudaat yooyu le bañ fa bàyyee koo am na ahdul muluk buur nga xam ne ay roi lañuy doon roi yooyu itam am nañ fa ab jamono roi yooyu nag ñoom ci leen formé mooy Samuel Samuel ndax bi nga xamee ne banu Israila dem nañ ba am problème am jafe-jafe ndax bi buur yi paase rek dafa am tafakkuk tafakkuk mooy nguur gi détaché wu nguur gi tas ndax nguur comme jëmm la day feebar di dee dynastie yi mag yi itam comme noonu la boo ko seetee fii ci Sénégal man ngeen koy man ngeen ko jël bu njëkk dañ naa wax les Almaami de Fouta ñi jàng ñëpp ñu ci bari Fouta lañ jànge waaye léegi dynastie yi gën a rëy tey ci senegal doo ko fekk Fouta donte am nañ fa waaye ñi nga xam ne tey ñoom lañ gën a fonk ci réew mi gën fi bari taalibe da nga naan Tiwaawoon wala nga ne Ñaseen wala nga ne Tuuba wala nga ne yeneen kii dëgg la ay ay këri diina mu nga fële ma ci bëgg a wax rek mooy day dem ci jamonoy doole kattan bu yàggee mu disparaître noonu la yàlla bindee taarix noonu la Ibnu Khaldun wax ci la société de maanaam ilmul ijtima xam-xamu social et loolu la Spencer wax itam ci téere bi mu tuddee alxadaara la civilisation dafa ne comme nit la comme fleur la comme gàncax la. day mag di tóor-tóor di meñ di rak dem bam yag mu dal di dee beneen garab dal di judduwaat c'est comme ça euh jamono ji di ñew da na am yenen fam da na am yenen fam yu da na am yenen fam yu judduwaat ndax oustaz yi fi mu ne nii di góorgóorlu bu yagge sen daara yi day dem ba nek dynastie donc lolu lu am solo la bi ñu demee nag ba takalé ko ñom ban Israël ba tay yalla wax nako ci suratu Baqara ñu ñew fekk sen yonantu bu ñaan Samuil ne ko ñun daal dañu am problème bëgg nañu reconquériraat suñu tedd nga ak démb ak suñu tedd nga ak maam ya léegi nag foog ñu am buur boo xam ne moo ñuy diviser foog mu am buur boo xam ne moo ñuy élif mu xool ba mu yàgg ñaan yàlla yàlla wan ko ne ku ñu naan taaluuta moom moo leen mën a nekk seen buur mu ñëw présenté taaluuta comme candidat yahudi ne ko annaa yakunu lahul mulk ba tey ci baqara naka lay nekkee buur te moom amul alal te it bokkul ci néegum nguur yàlla ne déedéet président duñ ko tànn parce que dafa nekk Richard waaye jox leen ko alalu réew mi rek toujours dama koy wax may tafsir président de la république boo ko nekk réew mi yëpp sa loxo la nekk ndax da nga nekk di ko ñàkk foofu ban Israël amuñ fi xel ñàkk mën na la dab bi ngay ut nguur te amagoo ko na la dab bi ngay campagne te amagoo nguur way waxtu wa arrivé au pouvoir khalib yeb yëpp sa loxo lay nek idriss Seck mu koy wax mu ne Ablaye Wade keroog ba njëkkee dugg daf ko né nos problèmes financiers sont finis nos problèmes financiers sont finis problème mu finance khalis légui jeexna la caisse est là contribuable est là les quais ont gère alors comme faut ban Israël djum nañ fa yalla né leen taaluta mi. dama ko jox ñaari critère dama ko jox jëmm ju wér ju ànd ak xel waaye jox ko xam-xam bu yaatu lool bu mën a gouverner ñu déggee ci ne réew mu réew mu wérut duñ réaliser dara ci àdduna réew mu xamut duñ réaliser dara ci àdduna moo tax bépp gouvernement buy foyee l'enseignement yow fa nga jëm baaxul kenn du ko foyee ci réew biñ taaluta yàlla def taaluta jiite leen ab diit ñu daldi di dem nag benn xare pour war a dugg baytil maqdis fekk booba am na kuñ naan joliyaat ñii ne jaaluuta bu dee tubaab yi joliyaat la ñuy wax joliyaat mooy goliyaat goliyaat moomu bu dee ci alxuraan jaaluuta la la wax daawuda daldi di affronté jaaluuta dal di ko rey ña nga xam ne ñoo bokk ci giir ga dal di daw bi yasoo deexee bi taaluta deexee nag daawu dañu jox ko nguur gi yàlla itam def ko mu nekk yonent loolu diire na loolu am na juróom-ñenenti téeméeri at ak juróom-ñeneen ak ak juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar avant yonti yàlla Isa di juddu muy 996 ans avant yonti yàlla euh, Isa di juddu bi nga xamee ne suley kii daawuda génn na àdduna daf bàyyi doomam ji naan suleymaan suleymaan moomu nag moom mu ngi juddoo baytul maqadis mu ngi juddoo quds ba mu ñëwee nguuram continué na ba am ñeneen fukki at yu mat sëkk ndax mu ngi arrivé 963 ba 923 ci la reñam jeex suleymaan moomu nag moom dafa am particularité ndax mom yàlla daf ko mayon mu nek bur bu doy war may ko tagatal ko jinne tagatal ko ngalaw li tagatal ko tagatal ko tagatal ko yu bare bare bare bare ba mu khalifa bi yàlla ci ko suuf bu dee daawuda moom it yàlla ne ko xalifa nga ya daawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard daawuda defna la nga nek sama khalif ci ko suuf waye khilafa gi yeb li muy jëriñ mooy àtteel ak bul top nit ñi bul top banexi bakkan yi suleymaan moomu ci wàllu baatin ñi ut baatin Souleymane mooy seen symbole bu dee ci franc yi ñoom dawut lañ jël ndax moo rey Goliath te Goliath dafa amoon benn euh, symbole bu mag a mag a mag a mag a mag bi mu ko reyee nag ñu ne la puissance force force moo tax franc-maçon li mooy force force nag dañ na ci xaalis lay doon ak pouvoir ku amul xaalis amuloo pouvoir mënoo gérer dara ci lañ organiser nag. li ngay gis étoile David eh, bari na buñ xes xëy na dañ du ñàkk bés ñu dem ci benn conférence ci franc-maçonnerie eh, du dundam judduum ak euh, loge yi nga xam ne tey am nañ ci àdduna bi bu ñu fi yàlla bàyyee incha allah tabaraka wa taala léegi nag bi nga xamee ne Souleymane génn na àdduna bani Israël dañoo amaat problème seen problème seen nguur dal di xaajaat ndax Souleymane daf fi bàyyi ñaari doom benn doom bi mu ngi tudd Ra. rahbaam rahbaam ak yarbaam ñii jaayanteeg am ñii d'accorduñ ci jaayanteeg am nguur ga daldi tas xam nga mbooloo mooy joxe doole bi loolu amee nag nguur gi dal di tas bi nguur gi tasee nag ñu nekk ci xeexo bi nekk ko ci xuloo bi nekk ci mbiccoo bi mbaaloo ba ñu ba ci 721 1721 astafurlah 721 ci année avant yonti ala Isa di ñëw fala ben bour bu ñu tuddee sardion sardion mo doon bour Asoriyeen yi dal di ñëw créer nangu réew ma ci sen loxo créer nguruk Israël créer ko détaché nguur gi dal di samp bopam mu nek bour ci euh, territoire bulé lolu mu ngi am ci diire na ay année mu toog fa ay année ba année jeex gannaaw gi pharaon yi ñoom itam ci diiru jafe doomu Suleymaan yi itam ñoom nañu dugg Égypte jëm nañu dugg Palestine pour occuper ko ñoom ñoo jiitu ndax ñu fa 608 la pharaon dal di pour occuper occuper espace pour détruire. li desoon ci nguurug yahuda yahuda moom nag dafa am solo ba ñoom ci lañ askane seen bopp tuddee ko yahuda mooy yahudiya bi nga xamee ne pharaon yi ñëw nañ bëgg a ci la roi Babel roi bi nekkoon Babylon te ñu tuddee ko buxtu nasar te buxtu nasar ngeen tuddee ko Nabucodonosor moom itam moo ñëw renversé gaa yooyu dal di fa implanté ba mu fa implanté nag yahudi yi jàppoon yëpp ñu nekk jaam. ak ñi nga xam ne ndax Nabucodonosor bi mu ñëw dafa rey yaxul yi daf ci rey rey bu métti métti métti métti bokk bokkut ak holocauste bi nga xam ne moom la ñuy wax ne moom la Hitler def ba nga xam ne daf ci jàpp ñu bari Nabucodonosor nag bi mu demee ba toog jëmmi jamono moom itam nguuram commencé wàcc ñu toog ba mu yàgg eh, persan yi mooy eh, farisiyen yi persan yi dal di ñëw ci seen benn buur bu ñu tuddee Xorsh Xorsh moomu. xursu al akhmini moom itam mo ñëw renversé babylon yi nga xamne ne ñoo jëloon Palestine ci yahudi bim ko renverser ba pare daldi nak am ben bum gu ko yew ak yahudi bum gogul di bum gu deugar ci la mayad yahudi demo dawon ak yahudi japon njàppoon yépp ñu dal di dellusiwaat Palestine dal di fa dëkk biñ démé ba ci atam manam romain jaar nañ fa atum 320 euh malik ay Alexandrie le Grand ci la ñëw moom itam Palestine bi mu ñëwé Palestine jaar na fa xam ngeen ne Alexandre le Grand moomu moom la yàlla tudd ci alquran ci suratu ba tey kahfi ci tese bam tese ak juujaak ak wama juuja loolu itam beneen histoire la beneen qissa la gannaaw bi nga xamee ne moom itam dem na am na benn dynastie bu ñu tuddee Batalisa les Batalisa ñoom itam ñëw nañ jël Euh, Palestine ba loolu amee nag romain yi dal di euh, révolte dal di créer doole dal di ñëwaat nanguwaat Palestine biñ nangoo Palestine dynastie bi ñu tuddee Mukaabiyiin yi te di ay yahud ñoom itam ñu taxaw di xeex pour delloo siwaat doole ak kattan ci Palestine doole doole doole ak kattan ci Palestine loolu nag mu ngi am ci 63 njëkk yonent yàlla Isa di juddu booba jamono jooju yonent yi gën a mag ci yonent yi ban Israil mooy ak Zakaria Yaxya ak Zakaria mi nga xam ne eh, Yaxya moo jur Zakaria moo jur Yaxya waaye Zakaria itam moo yar Maryam Maryam dal di màggee ci temple bi màggee ci jàkkaay baytul maqdis di néeg bu sell bi nga xam ne moom itam yàlla tudd na ko ci suratu Ali Imran gannaaw gi nag la romain yi del siwaat bi romain yi del siwaatee bi ñuy ubbi ñoom Palestine ki leen jiite woon doon seen général mooy Bambios Bambios moo leen jiite Bambios moomu nag bi mu jëlee Palestine ci la samp Hérodos ko dëkk Hérodote dafa am Hérodote historien am Hérodos boo xam ne buur la donc Hérodos moomu nag moom moo fa nekk ba ci jamonoy Ponce Pilate bi nga xam ne moom moo complot ak yahudi pour élimine yonte yàlla isa alayhi salaatu wasalaam ba isa moom itam mooy dernier yonantu ci ban israil bi mu ñëwee gannaaw ban israil amatuñ yonantu eh, te ibrahima ba ci yonte yàlla isa moom motti yonantu ban israil comme ni yonte muhammad sallallahu alayhi wa sallam mottilee yonantu doomu aadama nga xam ne gannaawam yonantu dootu amati sallallahu alayhi wa bi nga xamee nag ay saan ak yëg na alayhi salaatu wasalaam li ñu tuddee féodalisme dal na ci raxu yahud féodalisme dal na ci seen rax yàq lu bare bare bare bare léegi nag bu ñëwee ci jamono islam ndax yëpp jamono yi yàgg yi la bi ñëwee ci jamono islam ba yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñee ba ba yàlla yàlla ñaanam ba Jibril ci néeg ummu haani ndax keroog bi ko yàllaay rañaane mu ngi fanaan ci nekk ummu haani ummu haani cousinam la mënu ko denc fala Jibril ak Buraax ñëw yéeg ñëw yee yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mu départ ba mu dem baytul maqdis histoire la ci baytul maqdis ci masjidu saxra fa la yonte bi yéegee dem asamaan andil ñu julli loolu itam ci rajab la amoon moo tax muy euh, weer woo xam ne weeru ama am solo la yonent bi mu dellu see nag ba gàddaay dem Medina moom it xelam mu ngi ci li ñu tuddee baytul maqdis xelam mu ngi ci li ñu tuddee Oroslim bi nga xam ne dem na ba ci atum juróom-ñett atum juróom-ñett ci la yonentu commencé bind lettre buur yi booba Palestine romain yi ñoo ko élif waaye keleen fa teewaloon نكون سن غوفرنور مودون حارث ابن عمير الازدي موم لا يوننتو ادريس لتر بي نكو جوخال مكو امبرور هرقل بور مو جانغ كو خامنا يالا ما يوني غيس نغ صاح هرقل دا فا مير باني دنا يبال بن واي سي سما غوفرنور مو دم جابال ما واي خامنا لا مخ دا فا خاوا نياو دا فاي ام فيت ديما ديما ديما جيما اوفانسي ديما بين لتر نان يالا ما يوني waaye yonent daf leen ci tegal ñoom ñëpp ne seen nguur yàlla disparaître na ko te nam ko waxee noonu la amee sallallahu alayhi wa sallam booba nag gouverneur bi mu ngi woon ci dëkk bu ñu naan Bosora saat la ca la nekkoon présenté fa romain yi ka ko ka yónnoon ka yónnent bi joxoon lettre boobu nag mooy Surhabil ibnu Omar al-Khassani Surhabil ibnu Omar al-Khassani moom la yónni yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yebaloon mu yóbbul ko. lettre bi bañu démé aba lolu yonentou yabal na ben xare ba tay ci atum juróom-ñett yabal na ben xare ñu dem dëkk bi naan mauta ndax mauta ci frontière falastin la ak jordani ak Liban fofu la mauta toll muy xare bo xamné bu métti la parce que ñetti junney soldaar la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yabalon dal di jox raaya bi jaafar ak zeyd ibnu xaarisata ak abdullah ibnu rawaxata ñii ay ponkal lañ ay mbëri yàlla lañ keroog xare bi fekk na xalit ibnu walid benn weer la am ci lislaam dafa dugg ci lislaam am benn weer ba gaa yi dem mu ne yonentu damay nekk militaire volontaire bénévolat laa fay demee ànd ak moo ñoom bi ne bi xare bi naree ñaaw xare bi nar a métti ñu rey jaafar ñu rey ñu rey Abdoulaye Abd euh, Zeyd ibn Haarisa la njëkk a rey Jaafar dal di jël drapeau bi ak loxo ndeyjoor ñu dagg loxo ndeyjoor bi mu jël ko càmmoñ ñu dagg loxo càmmoñ bi mu ŋànk drapeau bi ñu dagg doq gi ndax nee na drapeau yonent yàlla Muhammadu daanu sallallahu alayhi wa sallam ca la ko Abdoulaye ibn Rawaha jëlee xaw a mel ni luy bugg bakkan bi naan ko dee nga jëm ca la wéyee wéyam yu yooyu xëy na du ñàkk ñu def ci darsu incha allahu tabaraka wa taala alors bi loolu amee nag bi nag. لكن نك نك لغول خالد ابن وليد خالد ابن وليد داف اي بخي دي داف اي بخي دي داف اي بخي دي داف اي بوسين دي داف اي بخي با رتيال ارمي بي ني دال ديل شاد مدينه ا أه، با ديمي تي سنن مسلم سنن آه، ترمسي اك يينن سنن اصحاب السنن نينا غاي با ني نيو وا مدينه دنج لن دون وخنا يا فرار فررتم في سبيل الله يا الله بل هم الكرار كررتم في سبيل الله mu ne bi ñu ñëwee Medina dafa am ñu leen doon tooñ ne yéen da ngeen daw ci yoonu yàlla yonent ne ñii dawuñ ci yoonu yàlla waaye ñii dañu attaqué ci yoonu yàlla bañ rey seen généraux ñu def pexe ba ral di rëcc ndax loolu moo ma gënal am na sax ñu contesté affaire ba waaye du du moment bi damay wax rek li nga xam ne histoire moom muy tel tey du ilmu hadis bu dee ilmu hadis am luñ ca luñ ca mën a mën a leeral foofu incha allah ba loolu amee nag yonent nag bàyyi xel.